Honorable Lamine Faye. Abdou Mbow la parole pour trois minutes. Se prépare euh, Malick Diop pour cinq minutes. Ah, euh, merci euh, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Madame, Monsieur le collaborateur des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre de la Jeunesse maa ngi lay nuyu di la dalal di la encourager notre jeune frère. di nuyu waa ministère de la jeunesse di ci jiital sama collègue Jimo Soare mais et mon frère euh, Tamsir Faye et tous les collaborateurs du ministre monsieur le ministre Sénégal ndaw ñi am nañ yaakaar ci yow loolu mooy la réalité mais dama bëggoon rek bon je dirais pas que le budget dafa ndaw parce que c'est arrêté à 30 milliards 500 en autorisation d'engagement et en crédit de paiement monsieur le ministre je sais que le ministre des finances l'a tout le temps expliqué c'est un c'est secteur transversal parce que ministère boo dem mën nga fa fekk loo xamante ni mën nañu wax ne lii pour ndaw ñi la xëy ndaw ñi rek c'est vraiment quelque chose d'éloquent par rapport à cela parce que milliards pour cette année mais je voudrais aborder dans le sens du président de la République pour faire un plaidoyer mais c'est par rapport à sa vision parce que président de la République bi muy ñëw dafa jël euh, ann jël euh, ANEJ FNPJ boole ko mu doon ANPEJ aujourd'hui ñu am des structures yoo xamante ni jàpp naa ne toujours dans cette logique la muy 3FPT nga xam ne day intervenir ci jeunes yi ak DER je depuis cinq ans je l'ai dit ces deux pour man dafa war a ñëw au niveau du ministère de la jeunesse en quoi faisant parce que tey ji ñooñu nga xamante ni dañu am ay doole ANPEJ di liggéey 3FPT di liggéey DER am alal loolu buñ ko boolee entrepreneuriat bi nga xamante ni dooleeku na sa mais dina tax tey l'efficacité de la vision du président de la République en matière de la jeunesse mën a am des résultats concrets donc loolu aussi je pense que c'est un plaidoyer monsieur le ministre des finances di la encourager et di la féliciter monsieur le ministre des finances parce que je vois que même au niveau de ANPEJ souvent vous faites des efforts mais jàpp naa ne efforts yi war na a yokk surtout par rapport aux problèmes souvent qu'ils ont même des fois pour payer des salaires donc le plaidoyer fort que je voudrais naa ne 3FPT DER dafa war a doon loo xamante ni ay direction ministère de la jeunesse lay nekk nga xam ne entrepreneuriat bi ak li nga xam ne mooy financement bi jeunes yi dinañ ci gën a mën a gis seen bopp parce que loolu su amee dafay prolonger la parce que loolu mooy xalaatu président de la république souvent li ñuy wax ni dina am ñoo xamante nii comme deux fois ils ont l'esprit malfaisant dañuy jàpp ne voilà dañuy ñëw di kaas ñu li ñuy wax mooy président moo am vision dajale ñu ne tey am na loo xam ne gis nañ ne su ko dajalee dina gën a am ay résultats par rapport à ce qu'on fait je pense que ça quand même monsieur le ministre c'est cohérent et c'est un plaidoyer fort que nous portons maa ngi leen di sant di leen gërëm je vous remercie. beaucoup mais vous avez 20 secondes euh, donc c'est Malick Diop qui prend la parole pour cinq minutes. Vous avez cinq minutes, Président Malik Diop. Et se prépare Serigne Abombake Cham pour cinq minutes. Merci, Président. Président, maa ngi lay souhaiter présidence boo xam ne yàlla daf ci def jàmm ak salaam te nga réussir ko. Monsieur de ministre ñu ngi lay nuyu di nuyu say collaborateur di nuyu également ministre du travail. di nuyu bépp député bu fi nekk di nuyu doomu sénégalais Sénégal. yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew monsieur le ministre dama bëggoon bu ñuy waxtaan ak sénégalais yi ñu préciser un certain nombre d'éléments bu ñu nee fanweeri milliards dafay budget ministère mais yow da nga yore ministère bi nga xam ne tey moo jël en charge dix 77 pour cent de sénégalaises et de sénégalais. parce bu ñu jàppee Sénégal bu ñu jëlee téeméer mën nañ ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ndaw la yoo xam ne amuñ fanweer yeggaguñ fanweeri at ak juróom loolu moom mooy sa ministère ñu boole ci entrepreneuriat ñu boole ci également xëy parce que bu ñu nee emploi dafay nekk dañ koy jaawale souvent ak emploi des jeunes xëy nga yore maanaam ndaw yi ci lañ bokk jigéen yi ci lañ bokk ñu jël l'aspect transversal du travail gis ne Sénégal en 2012 parce que loolu mooy évaluation boo jëloon téeméeri doomu Sénégal juróom benn ñoo ci amoon métier bu leen di permettre ñu mën liggéey foofu la nag programme yi nga xam ne mettre nañ ko en place gouvernement programme yi mu mettre en place moo permettre ratio boobu yokk bu baax a baax a baax ba nit ñi mën a am xëy xëy boobu nag bu ñu nee tey programme accéléré bi nga xam ne moom mooy xëyu ndaw yi juróom benn fukk ak juróom juróomi junney ndaw ci at ak genn wàll am nañ xëy mais ñëwuñu rek am xëy comme ça c'est parce que il y a programme bi ñu naan programme formation professionnelle foofu la ñuy dugal maintenant li ñu naan 3FPT te ci 3FPT bi model bi moo am solo parce que modèle bi dafa jël société yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal mu ne leen am na pàcc boo xam ne da ngeen di ko dugal pàcc boobu ñu tuddee ko contribution forfaitaire à la charge de l'employeur muy CFCCE pàcc boobu muy fanweeri milliards yi nga xam ne dañ koy dugal ci ndaw yooyu nga xam ne dañ leen di former ku ci nekk nga am métier parce que boo amee métier am liggéey dafay gën a yomb léegi nag monsieur le ministre dama bëgg ministère bi ñu gën a maîtriser un élément important mooy le dispositif d'appui bi nga xam ne depuis 2012 il est en place Sénégal tey dispositif d'appui boo xam ne amul woon dama bëgg mu leer 2012 la tàmbali. mooy permettre koo xam ne dafa bëgg créer entreprise dem APIX créer fa entreprise ñu accompagner ko bu créer entreprise ba pare entreprise boobu ñu ne dañ koy tàggat fexe ba entreprise bi bu fekkee ne amul woon bancarisé wu mu am li ñu naan compte bancaire ñu jàngal ko naka la ñuy defee comptabilité garanti demal FONGIP FONGIP am na garanti yoo xam ne ndaw yi bokk nañ ci ñi si des ñi nga xam ne jigéen yi tamit bokk nañ ci mu am banque bu ñu tu tuddee BNDE buy permettre de delà du fonds nga mën a am financement ci loolu loolu ce dispositif là il faut que ministère des finances am euh, euh, un aspect de coordination bu koy permettre loolu yëpp ndaw yi xam ko yëg ko bu ñu koy yëgee tamit ñu mën a bénéficier de ce dispositif là qui n'est pas un dispositif politique mettre un dispositif pour les sénégalaises et les sénégalais loolu laa leeral ci li nga xam ne euh, bokk na ci programme bi nga xam ne Sénégal merci beaucoup euh, <coughs> président Malick Diop euh, donc c'est serine Abo Mbacké Thiam qui a la parole pour cinq minutes se prépare Abdoulaye Diouf Sarr merci monsieur le président Lamine Diallo maa ngi lay nuyu di commencer di féliciter les lions du Sénégal ñoom ñi nga xam ni tey dañoo am ndam et di ci féli di ci profité di félicité waale ki nga xam ne dañ koo génnee réewam exilé ko muy Karim Meïssa Wade monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di nuyu les ministres monsieur le ministre si le chômage est un phénomène bien connu tey ampleur bi nga xam ne jël na ko nekk na loo xam ne c'est inquiétant et que ci dix années dernières années on va revenir nous dire li ñu def ci affaire chômage li ñu ci def ci affaire xëy ndaw ñi kenn defu ko mais bëgg naa bii pas ngeen comparé bi ngeen di ñëw vous nous avez promis cinq cent mille emplois par an ci cinq cent mille emplois yooyu bëggoon naa nga xam ci dix ans xam ne douze mois moo leen dese lan ngeen ci jot a defagum mais pas di comparer li nga xam ne moom ngeen fi fekkoon et am na ay stratégies yoo xam ne teg ngeen ko pour la promotion de l' emploi des jeunes mais la situation sur le marché du travail amul lenn loo xam ni changé na ci li nga xam ne moo nekk situation boobu noonu et que tey li nga xam ne moo nekk emploi yi ngeen di jox c'est des emplois précaires yoo xam ne amul lenn loo xam ne dafay durer te emploi précaire yooyu noonu c'est pas une bonne stratégie pour régler la situation bi nga xam ne moo nekk des jeunes parce que si on voit le masse budgétaire bi nga xam ne moom lañ engagé le nombre de jeunes concernés ak li nga xam ne moo nekk la persistance des taux du chômage relativement élevé dafay poser wu la question de l'efficacité du dispositif bi nga xam ni moom lañ mettre en place pour accompagner li nga xam ne moo nekk question boobu donc dispositif boobu war nañ ko mën a porter à l'échelle mais pour apporter une réponse boo xam ne dafay gën a appropriée et gën a durable par rapport ak li nga xam ni moo nekk réponse précaire boobu noonu ci mais aussi évaluer les projets vous avez mis en place des li nga xam ne moo nekk ay agence pour ñu accompagner les jeunes ñu financer leen aujourd'hui tey war ngeen mën a def évaluation pour xam ci loolu lan ngeen ci def ñaata jeunes ñoom ñoo ci am li nga xam ne moo nekk liggéey lan moo nekk perspective yi ndax yaakaar naa li nga xam ne moo ci des loolu li leen fi desee bareetul et que la méconnaissance des institutions yi war nañu mën a am li nga xam ne moo nekk information bi parce que y' am manque d' par rapport au jeunes ci agence yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu financement yi dañuy ñu xam fan la ñuy dem du ñu xam na la ñuy amee orientation donc sur la communication yaakaar naa y' a beaucoup de choses affaire faire parce que tey boo demee ci Paris foot yi ndaw ñi nga fay fekk boo demee ci grand place yi ndaw ñi nga fay fekk foo tourné ci mbedd mi jeunes yi ngay gis mu am problème emploi boo xam ne moo tax ñenn ñi dugg ci ay agression ñenn ñi di dugg ci loo xam ne neexul suñu borom ñu xëy ma bëgg a xam monsieur le ministre ban politique d' emploi moom nga am pour nga xam ne moo nekk la pour la jeunesse ndax ministère de l' emploi nekkul woon ci yow feneen la nekkoon mais tey ñëw nga ban politique nga emploi na pour ces millions de jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ci li nga xam ne loolu moo nekk li nga xam ne moo nekk réew sànq aussi le renouvellement du conseil de la jeunesse le mandat est arrivé à terme depuis le mandat bi jeex na depuis 2012 mais boobu ba tey amul renouvellement et am nga explication boo ci joxe pour wax que na ngay xaar. ñu def ay réformes munoo yow mi nga xam ne da nga atteindre te limite d'âge depuis deux mille dix neuf ngay bëgg a def ay réformes réforme na koy def ak équipe bu bees bi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw pour permettre ñooñu bu seen mandat jeexee ñu dem monsieur le ministre le département de Dakar dañuy amul benn CDEPS e boo xam ni day répondre au norme encore moins centre conseil ado boo xam ni sa fonctionnel bëgg na ñun waa Dakar soxla nañ loolu bëgg nañ aussi nga àndal ñu ci ay réponses monsieur le yi nga xam ne lancé woon ngeen ko Pikine loolu aussi soxla nañ ci li nga xam ne moo nekk ay réponses et que depuis presque deux ans le chef de l'État dafa lancé woon lu ñu wax la création du conseil national pour l'insertion de l'emploi des jeunes loolu bëgg na nga xam fi mu toll nii fan lañ ci fan ngeen ci toll et pour la majorité des jeunes l'accès à l'emploi durable est le résultat incertain de leur parcours nangay ngay jàng bay bëgg dee yor say diplôme foo fëgg duñ la faale wala ngay dem ñu lay laaj expérience su cinq ans alors que yow jeune bi yaa ngi soog a am sa sa sa maîtrise wala sa licence ñu bëgg la laaj e, e, euh, expérience boo xam ne amoo ko cinq ans loolu mënoo ko am mu nekk problème moo tax après ñuy mën a dem di dugg ci biir mbëkk mi di dem defee leen loo xam ne nekk sudul noonu et permettez-moi aussi de rendre un vibrant hommage ñi nga xam ne mooy l'intercoalition wàllu yeewi tey ci suba yeewi moo siégé fii en tant que vice-président tey ci ngoon wàllu moo siégé loolu dafay wane que ni sénégalais yi kontaan nañ ci ñi nga xam ne moo nekk les députés de l' wallu ak yeewi di leen wax ni yàlla ñun la àndal que la amoon la woon woon tey dañuy siégé ëllëg ñun ñu siégé heure vote jom heure vote jot du ñu mën a dem du ñu mën a bougé fii la ñuy toog ñu nekk ko fi ñu nekk ñoom kenn du absenté ki dàqoon absenté sax léegi day ñëw bravo à vous le peuple est content je vous remercie. merci beaucoup donc c'est Euh, Abdoulaye Diouf Sarr, président Abdoulaye Diouf Sarr, vous avez la parole pour cinq minutes.